jërë ngeen jëf mbokki internet yàlla Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafetlu ngeen di toppee suñu chaîne bi ñu informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew seen acti du jour dañ koy doore ak génn bu àdduna wayjur bu góor ci kii di Cheikhou Kouyaté ni ki démb nag la mbir ma daal di xew waaye nag moom daal nañ koy rek denc ni ki tey mu daal di doon triste nouvelle bu daal di dal rek ci international sénégalais bi di Cheikhou Kouyaté gis nañ ne nag moom daal nay quitté rek regroupement bu équipe nationale depuis Côte d'Ivoire daal di rek ñibbisi fii ci Sénégal ngir rek fekke la nga xamante ne moom moo di enterrement kii di waajuram bu góor di di Ndiogou Kouyaté euh, mu mel ni nag bii le enterrement ñu ngay gis rek euh, nit ña nga xamante ni rek daal nañuy teewoon ak seede yu rafet ya ñu daal di def rek euh, ci ka nga xamante ne moom moo daal di rek bàyyeekoo fii bokk na rek ci témoignage yu Oustaz Modou Fall yi mu daal di def rek ci bàyyi ci kii di Cheikhou Kouyaté def rek ay témoignage yu am am solo rek ci rek ka nga xamante ne moom moo di bàyyi Ndiogou Kouyaté mu daal di doon loo xamante ni nag lu métti rek lu daal di dal ci famille Cheikhou Kouyaté Ah, ni ki tey nag moom lañ ko daal di denc rek ah, gis nañu mbooloo mu takk ma nga xamante ne rek daal nañu ñëwoon daal di koy gunge ca këram gu mujj ah, ñu daal di wax ci Oustaz Modou Fall ak problème ba nga xamante ni rek amoon na ko ak benn ministre mu doon nag loo xamante ni gannaaw nettali ba nga xamante ni kii di Oustaz Mouhamed Mbaye bu Sen TV daal na ko cay def moom Oustaz Modou Fall tamit daal nay andi leeral rek ci li waral sax daje boobu moom mu daal di koy gedd rek jóg dem ñibbi ci noonu nag a ah, mu mel ni mu nga àndoon sax a ak kii di a Mouhamed Mbaye ñu demoon rek ah, ca la nga xamante ne daanaka ab ziar la rek waaye mu mel ni ab ministre daal dina fay rek teew ca rek bi lee jotaay moom Oustaz Modou Fall nag ah, ca la mu nettali rek muy wax sax ne ba ñu accès rek daal di sax fekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa ya daal di toog ci kaw ñoom nag bañ leen waxee ñu yëg kaw sax moom dafa daal di rek def yëfi taalibi rek toog ca suuf waaye nag fa mu toog mu mel ni dafa daal di rek déranger nga xamante ne moom moo di ministre ba rek mu daal di woo sécurité ba ngir rek ñu daal ñu toog waaye moom Oustaz Modou Fall nag ku xam ko rek mu daal di lànk ne du jóg fa nga xamante ne rek fa la daal di toog gannaaw coow la nga xamante ne rek moo ko doon tàmbale am ci la daal rek jóg ànd ak Oustaz Mohamed Mbaye daal di ñibbiwaat rek noonu la ñu umpalee rek la nga xamante ne moom moo di ziar ba amoon ci rek jëf ne moom jàpp na ne kii di ministre ba moom moo leen ko daal di def rek mu daal di doon loo xamante ne moom Oustaz Modou Fall mu nga koy ñaawlu bu baax a baax. ñu dal di wax ci leneen politique la ñuy àddu ak candidature bu Karim Meïssa Wade mu mel ni kii di Thierno Alassane Sall ba léegi rek mu nga cay àddu ca rek nga xamante ni sax daanaka moom moo di double nationalité ba Karim Wade dal di Amérique ñuy wax sax naan bile nationalité française ba léegi rek dañul waaye moom Karim Wade dal rek àddu ca la nga xamante ni daanaka moom moo daal di rek bëgg jur coow ci rek candidature am ci yile élection présidentielle ñuy wax rek ci. la nga xamante ne moom moo di nationalité française ba mu mel nag moom mu ngay xamle sax ne li ni mel daal nañ koy dakkal waaye Thierno moom mu jàpp ne sax ne jamono ja ñu daal di annulé rek fekk na lii di dépôt de candidature yi daal di nay weesu rek mu doon sax loo xamante ne moom dafa jàpp ne dañ ko daal di yéex a def rek doon tamit loo xamante ne moom Karim Wade daal na koy rek expliqué ci lu leer rek gannaaw ba nga xamante ne kii di premier ministre français daal nay rek signé ab décret ñu daal di retiré rek. rek lii di nationalité française bu Karim Wade mu mel ni nag li ni mel ba léegi mu ngay jur coow rek ci candidature bu Karim Meïssa Wade ak double nationalité ba nga xamante ni sax daanaka ñu nga cay àddu a ci ay recours yoo xamante ni sax daanaka ñu nga doon wax rek ne am na ñetti candidat yoo xamante ne daal dinañ koy def ñu mën ci citer rek kii di Mame Boye Diao Aly Ngouille Ndiaye Mouhamadou Boun Abdallah Dionne mu mel ni nag seenu mandataire daal dinañuy génn rek a wax rek ne benn recours duggul rek tukkee ci ñoom ngir seenu candidat waaye recours ya dugg nag ñu mën caa jàpp sax ba nga xamante ne moom moo daal di viser ni nag c'est avéré daal na ya dugg rek ci ñoom seenu candidature na nga xamante ne daanaka retenir nañ leen ko rek ci liste provisoire ba nga xamante ne conseil constitutionnel daal nañu amaloon rek ab ndaje ni ki tey rek ci li ni mel ñu daal di addu ci leneen plainte bu dal dal ca kaw Nabou Dash mu nga tukkee rek a oustaz Makhtar a moom Nabou Dash nag kaddu yu mu yëkkati ca ab sëriñ daara mu mel nag dafa ca la xaale rek yenn sëriñ mu doon loo xamante ni sax daanaka lu ñu ñaawloo rek waral ba plainte ba nag a di dal ca ndodda ba kii di a Makhtar a nag a di a rek lan a waral ñu daal di def bi lépp plainte ci leneen la ñuy addu kii di Sidi Diop mu ngay rendre hommage rek kii di ndongolo gannaaw nag fukki at ak juróom-ñeent yoo xamante ni rek moom woykat bi daal na ko fi bàyyeekoo rek mu doonoon ndaanaan ci wàllub musique waaye nag am ñu ko doon fête nag fan yi ñu génn rek moom Ndongo Lo 19 ans dal di rek bàyyi ko fi Sidi Diop nag di wax sax naan ñetti album ya nga xamante ne moom Ndongo Lo bàyyi na fi rek dafa daal di doon album yoo xamante ni patrimoine la war a doon ndax wéy yu am am solo ya nga xamante ne daal na ko ca def rek daal di profité rendre hommage bu baax a baax rek kii di Ndongo Lo ñu wax ci kii di Souhaïbou Télécom ñu koy lynché rek jamono ji ci réseaux sociaux yi ñuy wax sax moom na nga xamante ni rek noonu lay doxale ñu ca bëri di wax na nga xamante ni rek mu nga koy wane rek am amam ñuy fàttali rek ca màggal ga ak cortège ba nga xamante ni rek daanaka wala sax motar ba ko jiitu woon rek ngir xàllal ko yoon ba jamono jooju nag fekk na moom mu ngay wane rek oto bu mu dal di jën rek lu toll ci quarante millions naka noonu nag bu mu jógee ca loolu moom ñu koy gis rek place am ak façon ba nga xamante ni sax noonu lay jaayee téléphone rek ah, di wane à chaque fois ne dafa daal di yor rek ci réseaux sociaux yi ba tey rek ah, doon ay commentaires yoo xamante ni rek daanaka ñu ngay dal ca kawam bu baax a baax récemment ah, mu nga woon rek foofa ca soirée bu Wally Balago Seck waaye nag ba mu yéegee ak koppar yu takku kii di Wally Balago Seck nag gannaaw mu wéy ko moom sooy bu télécom nag mu doon yëkkati koppar rek di may Wally Balago Seck nag di ko natt wax rek na yëkkati cent mille francs jox rek musicien technicien ramdaan yëpp na nag li ni mel la mu mel ni moom sooy bu télécom defu ko naka noonu nag la daal di wàcce rek ca kaw seen ba waaye nag commentaire ya daal nay rek dal ca kaw bu baax a baax sooy bu télécom ak jamono ji nanga nga xamante rek mu nga koy exposé am amam ñu daal di wax ci acteur bii di Ibnou Thiam ñu gën ko xam nag ca série bii di Babel ñenn ña sax di ko duppe monsieur logique mu daal di doon incarnation parfaite d'un acteur complet moom Ibnou Thiam nag gis nañu ak na nga xamante ne rek noonu la amee buzz ci bile série di Babel waaye tamit na mu mënee lool la muy def rek ah, mu mel ni a ak rôle ya ah, ba mu defoon rek ba Sénégal la dóoree Gambie mu mel ni nag moom photo Lamine la daal di dugg rek di wax ne actuellement moom mooy meilleur joueur fii ci Sénégal ah, commentaire yi nag ñu cee di àddu rek di wax naan dafa bàyyi Sadio Mané ne am dit ah, ñu daal di koy nag yàq lu mel ni xamee ci réseaux sociaux yi waaye mu mel ni daal na génn rek ak beneen publication daal di tontu rek di a sax naan la ah, ñii di internautes ya fu ñu toll rek ñu nga koy toogee di wax ca moom waaye nag commentaire ya ba léegi rek mu ngay saf sap moom rek ñu ngay wax naan ah, moom moom moo daal di bëgg buzz rek bëgg tamit kuy wax ca moom mu mel ni nag moom ak internautes ya jamono ji daal dinay tàng jër ca leneen dal ci la femme de Doudou nekkoon ci série Adja mu mel ne nag kii di soxnaam ak no stress ba nga xamante ne mu nga koy dund rek ambiance ak li ni mel mu mel ne nag ñii di internautes yi ñu nga koy taxé de tous les noms lu ñu yàqoo ko ko rek ci ay réaction mu mel ni kii di Adamo nag moom moo ca desoon sax ndax nga ngay génn rek naan kii di jabaru Doudou ba foog ñu yóbbu ko rek a Thierno Moule Sow li ni mel nag doon ay kaddu Adamo mu jàpp ne sax ne réaction ya muy def nit ku normal du ko def waaye nag moom soxna sax daal di jublu rek ah, bégal borom këram waaye tamit ah, bégal internautes yi nga xamante ne ah, ñu nga koy suivre rek ci kontam mu mel ni nag li ni mel la commentaire yi mu cay jot neexul dara ci beneen duudu la ñuy àddu uteeg loolu du ba nekk ci série Adja bi yoon nag du fait des vidéos la moom nag depuis Côte d'Ivoire mu ngi sax naan deux mille trente sax taxul mu daal di ñëw rek fii ci Sénégal ndax la nga xamante ne rek daal na koy gis foofa ca Côte d'Ivoire ñu nga koy gis rek ca photo ba mu daal di partagé entouré de belles femmes moom duudu ñu gën ko xam ci Doudou fait des vidéos waa Kinan Nimzatt lañ jëm mu mel ni ay agresseur gannaaw a match bu daal di jeex rek foofa ca Guédiawaye ñoom ñoo daal di attaqué rek foule ba daal di rek agressé ab étudiant jël ca moom iPhone 7 plus ak 40 000 francs waaye nag ñoom gannaaw ñu jël li ni rek daw ak moto ba ak xaalis ba daal di sax jaayaat moto ba li ni mel ak takk dere ak liggéey bu am solo ba nga xamante ne def nañ ko ca rek daal nañuy réussir teg loxo ña nga xamante ne ñoom ñoo def jëf ji ni mel la kaan bay xew ba ca Côte d'Ivoire ni nag paludisme ba daal dina fay bëri lool ba daal di attaqué sax yenn ca joueurs maliens ñoom nag ndam sax am nañ ndam ni ki démb mu mel ni yenn ci seen ay joueurs dañoo woppoon lool bokk na rek ca Yves ak kii di Moussa Diarra mu mel ni nag ñoom nekkuñu woon à cent pour cent rek ndax paludisme ba nga xamante ne moom moo leen daal di dal mu nekk ay joueurs maliens El Hadj Diouf comme un fédérateur foofa ca diwaanu Côte d'Ivoire ñu ngay gis rek rôle bu am solo ba nga xamante ne mu nga ko fay def rek. gannaaw Gambie daal di ñàkk ci kanamu Sénégal moom mu ngay rek consolé jouru Gambie waaye moom di Onana nekk portier bu équipe bi di Cameroun ci na mu yéexee ñëw fa nga xamante ne moom moo di Coupe d'Afrique des Nations daal di sax consolé ko rek gannaaw Onana ka nga xamante ne meroon na loolu ba mu xoolee ba mu nekk match bu njëkk di Cameroun rëg rek mu ngay défier rek Modou Lo mu jàpp ne sax ne annonce ba nga xamante ne Modou Lo daal na koy def rek pause ca làmb ja neexu ko waaye tamit neexul yenn ci ba moom rek rek mu daal di di wax Modou Lo tôt na koy taxaw rek muy Baye Ndiaye ñu ngi ko daal ki mois de juin jamono jooju a fekk na ne moom Balla Gaye sax amoon na nam rek ni ki mois de juin 2013 ca rek kaw Tapha Tine kii di ama neex moom ma tegul bët ñenn ñu dul cinquante 52 di bombardier ak kii di Lac de Guiers 2 mu jàpp ne sax ne bu bëriwut ak ñoom rek dootul bëre moom ama neex nag foofu la daal di teg bëtam rek ci bombardier ak kii di Lac de Guiers 2 mbokk yi safoon doon lii la ñu naan loon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi talaal cloche notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf.